سوره الاخلاص نك موي قل هو الله احد الله الصمد lam يلد walam يولد walam يكن له كفوا احد loolu موي سوره الاخلاص موي دانتيتي يالا موي دانتيتي يالا نيت كو نيك امغا كار دانتي سونو لا لاجي لان موي كار دانتي يالا نيل موي سوره الاخلاص ndax cardante li ciy nek moy sa tour ak sa touru yaay ak sa touru papa yàlla nak ci cardante mom yàlla limu ci def moy lam yalid walam yulad mooy juruma kenn te kenn juruma waaye tey walam yakun lahu walam yakun lahu kufuwan ahad <laughs> man yàlla aw ma nawle aw ma rival aw ma koy tudd di ko tudd awma ma adversaire waaw waaw tey loolu wala <laughs> en fait xam nga yenn saa yi ma tooñ ñu ree yàlla njëkk a ngéwéle yor ay nopp garmi day kañ boppam bëgg ku ko kañ mais loolu la bëgg. yàlla bëgg ku koy wax lu baax. mais yàlla loolu la bëgg. alaaji moo tax suma toiletto ba taxaw xale yi naan ma da ngay da ngay wane wu man leen bëgg yàlla rek. mais Pape yàlla ci boppam dafa bëgg ku koy bàkk. cee walam yakul lahu ja. walam yakul lahu kufuwan ahad lu mu ca wax. yàlla nee na aw ma nawle aw ma rival aw ma adversaire. wax ju rëy jàngoo ko <laughs> walam yakul lahu kufuwan ahad. li fi nekk lépp maa ko fi def. dëgg la aw ma rival. aw ma adversaire aw ma naataango. ji wax a rëy. walam yakun lahu kufuwan ahad aw ma nawle man yàlla mu ne nag naafila tay bi na nga jàng fatiha mhm. pap fatiha dafa am solo ci julli mhm. ba ci sunu julli farata yi ñuy def mhm. soo bàyyee fatiha julli gi baaxul pap xam nga réew mi ñu ci bari xamuñu julli parce que julli dafa am lu ko jiitu mooy jàpp jàpp dafa am ay farata am ay sunna ca ga la ba pare booy jàpp pap da ngay yéene mais ñu bari xamuñu foo yéenee booy jàpp foo yéenee booy jàpp booy sëlmu ah booy sëlmu boo tollee ci sëlmu fa ngay dawalee yéene ah. mi ngi mel ni kii sangu farata booy sangu farata doo ñëw rek yéene ni maa ngi sangu farata yaa ngi yéene fi nga demee bay raxas sa awra foofu ngay dugalee yéene bi pourtant nag yiw bi moo ñu ko jàngal lépp moo ñu ko jàngal ah. daf la wax ni la summa zakari fa yanwi indahu summa ala jasadihi marratan marratan maanaam bi ngay sangu farata bi nga commencé raxas sa loxo ñetti yoon di xubbiku jamono bi ngay raxas sa awra borom téere bi nee na foofu ngay dawalee sa yéene bu fekkee njàpp nag booy jàpp ba agsi ci xar kanam foofu ngay dawalee yéene ah. léegi nag pap soo jàppoo ba pare loo cay teg liqam waaw léegi nag liqam boobu ngay def nag boo ko defee ba pare amatoo beneen waxtaan yenn saa yi nga gis ku liqam ba pare di wax leneen liqamaatal liqam moom souvent day ànd ak julli gi bu liqam gi daanoo rek kabaral li ngay wax dafa dafa am solo dama bëgg ñu taxaw foofu parce que diggante benn benn ak ñett ñett ci farata ak lu dul farata. Mm-hmm. balay balay ñett ñett yooyu. Euh, ci yéene bi parce que dafa am ñoo xam ne balaa ñuy def dara. Euh, dañuy yéene allahumma inni nawaytu ilayka bil hasil faridatil wuduhi par exemple. mais dañu koy wax juste avant wala ci tàmbali gi nga koy nga koy wax. booy tàmbali man nga ñaan. waaw waaye booy yéene fokk nga bàyyi ba àgg ci kanam. booy raxas sa kanam ngay dawalee sa yéene. ci sa biir xol ne yaa ngi jàpp. ah doo ko wax déedéet. yenn saa yi pap nga gis ku taxaw sax di julli naan fas yéenee julli julli suba ci farata yàlla su na mais loolu bokkul ci sharia pap waa dañu xamul taxaw di julli naan maa ngi yéene julli tisbaar ci farata yàlla ba ci jàkk yi da ngay gis kiy nodd di ko def mais loolu erreur la amul ci téere sharia amul yéene xola innamal amalu binniyaati dañu ni yéene ci xol lan koy fas pa lu ñuy tudd doo taxaw ci jàkka ji ñëpp di la déglu nga naan maa ngi yéene julli fajar ci farata yàlla déedéet da ngay tardeel nit ñi te dañuy liggéey xam nga loolu nag fa la erreur yam non mais du du du erreur man je pense ñàkk xam la. li gar wax waaye nag boo ba xam ci julli. def ko ci ci def ko ci ni mu waree. ñàkk xam moo tax ñuy ñuy def loolu. barke papa maa ngi koy yéene ci barke papa. <laughs> mais pap pap xam nga nag di julli di tudd di tudd sëriñ ne ci barke diw. non je veux dire pas tudd sëriñ bi mais jaawale fi ngay yéenee yéen wax yéene bi kaw waaw xam la moom laa la wax ni la réew mi dafa bari ñuy jaamu yàlla ci làmb te xamuñu waaw pap am na xam ni bu sujootee subhaana rabbiyal aala bi mu war a wax ci sujoot xamu ko am na ñuy sujoot di tari tabat yadaa am na ñuy sujoot di tari lixlaas am na ñoo xam dañuy toog ñoom naan bismillahi rahmaani rahim ayo tam ki moy netali nako fi barki dem allahu akbar rek dal dina ta taalaa al badru <laughs> musuma gis loolu lo parti ba nopi nga def l'ikhlas ba pare wëlbatiku na ñun pour yeen ñi xamul l'ikhlas l'ikhlas moy tabati yada ah wa waaw loolu yow reer nga askan wi léegi nag dañuy waaw dañuy am njuñ njàcc suñu xel yi loolu dafa am si gis nga Pape gis nga julli suñu koñ Pape gis nga julli suñu koñ farata la farata la boo xam ne lu nit mën a ñàkk xam diineem mhm. diine sa diine loo ko sàggane sàggane sa faratay julli xam ko obligatoire xam ni ngay jullee xam foo toll loo fay def boo mhm. boo boo yokkee ci julli mhm. war a sujjoot ba'da salaam nga xam ni lii ba'da salaam la boo wàññee ci julli war a sujjoot xabla salaam nga xam ne da nga koo wàññi mais demal nga jàngi ni ñuy jullee boo kàbbaree xam fatiha lan la mais Pape ñun suñu temps ñi ngi koy passé ci yoo xam ne buñ concentré woon xam nu ñuy jaamoo yàlla dëgg la itam dëgg la yenn saa yi nga gis koo xamante ni bii ni muy jullee da ngay xam ni Pape yonent bi bu daan julli picc yi naaw dañuy ñëw tag ci digg bopp bi jàpp ni garab gu dee la il faut day def bur wi rek picc yi doog a naaw doog a xam ni ci kaw nit lañ taxawoon mais taxawuñ ci kaw garab mhm. ñu bëgg booy rukon nga rukon rukon goo xam ni téré yi wax nañu ni buñu soti won ndox ci sa digg gannaaw du ñew ci kanam du ñew ci ginnaw day tak ci digg bi rukuk bu talli bo kabbare ni allahu akbar nee nañu fixeel fi ngay sujud fi ngay sujud mom ngay xol jakarlo ak mom diko xol so demee ba tok di tayé sa tànk gauche bi dang koy lem tok ci jël bu droite bi samp ko amna ño xamni buñuy tayé dañuy def direct lañ ci jublu moy allahu wahidun yalla kenn la am koo xam ne day yëngal ay baaraamam lañ ca jublu mooy nee nañ jamono bi nga koy yëngal yaa ngi caw ay xiir iblis mais loolu nit ku ne war nga koo xam mm-hmm. mais julli goo xam ne pape da ngay toog rek ni mu la neexee boo toogee ba doyal rek ni asalaamaaleykum asalaamaaleykum jug dem moo tax yonent bi nee na nit dana julli ba pare ñu lem julli gi comme basang dóor ko ci xar kanamam kon du ko yëg kon nag alaaji pape nañu góorgóorluwaat ci julli xam ni point bu am solo la macha allah macha allah j'espère que il ñëpp euh, déglu ngeen li euh, Oustaz wax ça tellement d'importance yenn saa yi nag dañu koy jàppee détail alors que dafa am solo am euh, farata moom farata la mais am na itam ay sunna yo xamante ay sunna yu bax la. am ay sunna yu baax alaaji Pape xam nga farata mooy lo xamni soko bayé ko sa julli gi day yaq. Mm-hmm. sunna moy lo xamni soko bayé ko nga ko réparer. Mm-hmm. farata parce que jaamu yàlla yii ngay gis mi ngi mel ni naafile bi may joxe xam nga du farata sunna la mais dafa am sunna yoo xam dañoo am doole lu mel ni ñaari ay fajar xam nga pap bi nga xëyee fajar avant ngay julli farata bi def nga ñaari rakk ñaari rakk yu njëkk yooyu Mamadou Mbaye mooy ñaari rakkay fajar doo ci tari doo ci liqaam déedéet doo ci liqaam pap doo ci liqaam da ngay ñëw rek kàbbar allahu akbar waaw mhm. mooy ñaari rakk yi ngay njëkk a dawal boo yeewoo mhm. da ngay ñëw rek kàbbar te boo kàbbaree fatiha kese nga ciy jàng doo ci teg saar ah doo ci teg saar boo sëlmalee nag ba toog xaar ba nu salaatu mhm. ñaari rakk yi nga ciy tegaat loolu mooy julli farata mais bu njëkk bi sunna la mais yonent bi nee na moo gën adduna ak li ci biiram da nga wax moo gën adduna ak li ci biiram alaaji pap bis bu ne nga dégg Bilal taxaw ci jàkka ji na jug leen asalaatu xayrun an nawmi xam moom day xëdd ba pare balaa mu koy wax moom it oh réflexion la laaj su ëppee 5 minutes tamit day xëdd ba pare do ko wax day lekk ba pare لجارة وقت عنا يعني ديك علاج باب الصلاة خير من النوم حمد ما يلان ما يو ميدي نلو يعني نلو تجلي مو جن نلو باي اللي غير في بدك جلي جي حمد مو مر باي وحنا كو كرو ماني بوني الله أكبر يا الله نج سكنم نعتملي بسم الله الرحمن الرحيم ما نج تملي تي يا الله مين خمني موي خيوله كوكو سوبتي أدنى وعي موي يرم كتم كوكو نيح بسبيتي parce que boo xasee ba ne allahu akbar dem nga ci beneen pays. nekkatoo fi. léegi boo dellusee moo waral asalaamualeykum. mooy sëlmal bi ñibbisi nga ci sa pays. agsi naa. Ah. léegi nag da ngay commencé Pape bismillahi rahmaani rahim. xam nga lu muy firi. maa ngi tàmbalee ci yàlla mi nga xam ni mooy xéewale ku ko soob ci àdduna. Mm-hmm. mooy yërëm ku ko soob bis penc mm-hmm. nga teg ca lan alhamdulilahi. rabbil alamin rabbil alamin mm-hmm. maa ngi sant yàlla mi nga xam ni mooy borom jaam ñi. arrahmaani rahim. Moy, moy xewele kuko sop fi fii ba tey mhm. di yërëm kuko neex bis penc macha allah yàlla ni la xawma ki ngay wax kan la nga ni ko maliki yawmiddin ki may wax moy buru bis pench ndax yang koy tag yang koy tag ko ngi tagg yalla ci julli te kay yalla ak bëgg a lu baax mu jek jek nga ni ko maliki yawmiddin nak mu feug dëndam ni koku mo mën maliki yow waxal sa soxla nga ni ko iyyaka yaw yalla na'budu lañuy jaamu manam boko de misal misaal koy tag comme guerre ba mu kontaan. waaw nga doog dugal ñaan bi nga war a nga doog a dugal nag ñaan mu riis. moo tax Pape ku la ni bu ma fàtte ci ñaan ne ko maa ngi lay ñaanal. macha que bi ngay julli da nga ni iyaaka yow yàlla. Mhm. naabudu yow laay yow la ñuy jaamu. man Pape Cheikh Diallo. Aba Mamadou Mbaye Yacine Bijou ñun ñépp yàlla yow la ñuy jaamu wa iyyaka nasta'inu yow yàlla ci yow la ñuy dimbalikoo mu ne la waaw léegi li ma tagg lépp nag waxal sa soxla gaaw damay fatu ji nga ne ko ihdina siratal mustaqim waaw teg ma ci sa yoonu njub bi waaw waaw mu la ban yoon la nga ne ko siratal ladina an'amta alayhim tey mu ne la dafa am beneen yoon nga ne ko waaw xayril magdubi alayhim wala dallin waaw waaw mu nga ne ko amin ñu benn statut may ñu benn statut en quelques secondes filmel leen ma ko mu mayee benn statut ci lan nga bëgg ma ci ci lépp rek ci ci neex may ma statut ci neex <laughs> allez nañ ko cadré nañ ko cadré mu may ñu benn benn statut xoola